ama neex mbër da ngay am manin. Ah, ama neex bukki timis la. non dafa xam nga mag si li gën a neex. ci uh-huh. bëre mooy dangay ngay am manin. dëgg la. ci la daan booy ñaa. ci daan ci la daan euh, booy bi nu mu tudd. ci la daan Lac Rose te bu muy daan Lac Rose wax nga ko léegi boobu Lac Rose ngi ci état. booba lag pànk la mën a xeex mën a bëre. mën a xeex mën a bëre. Uh-huh. donc mbër la moo xam ne dafa am manin. dëgg la ama neex te li gën a am solo mooy temps bi mu toog bëriwul yëpp démb bi mu ñëwee état la andi. bi muy daan booy bool da ko fiir te boobu booy bool kenn wul ci moom dara ndax dóor ko du tax nga daan ko dominer ko du tax nga daan ko ndax daa a bëre boobu booy boowal mi ngi jóge ci Alioune Seye 2 daan ko daan marle ne ci ay dynamique de victoire hmm. moom moom booy boowal ne ma ama neex buñ ñu xeexee maa man bu bëree maa man 2017 2018 la woon mhm. ñu bëre ko ci ah, ci ci ci ci am stade Amadou Barry kooku waa Leewtoo ñoo ko tëggoon bi doxoon mhm. a bëre raay ma dawee ànd ak baaba dégg ko micro de mhm. raay xam nga entraînement du fen du fen bi laay dëgg dafa daw romb ma ma ne baaba ki am na doole de bébé jéen nag daanaan ne ci ay dynamique de victoire mais xam naa ne estafam ay ndaanaan lañu mën nañoo xam. ama neex estaf la nañoo koo xam mais ndax ku ci mel ni Kayre. pourtant nag pourtant Max. man combat boobu songu mi dafa gudd presque bébé doon na rëcc mais pour nga xam ne loolu mënin la ci ama neex. gis nga bi mu rëccee ci suuf ca kaw la bloqué. bi booy bi defaruwaat la ko paqueté ci suuf. mais de mais sa mbër da ngay am manin. mais ci bëre la ko daan. da ko daan jël bu rëy la ko daan. parce que ba ñu dawee daje. da ko kor. dóor ko uppercut Bébé Diène di dëggal mu daw songu ba mu koy songu Bébé Diène def rotation Ama Neex rëpp. non Ama Neex dafa surux sax moom laa lay wax ni dafa yóotu mais mais mais ni mu rëppee loxo bi ci kaw man ko bàyyi ci kaw Bébé Diène da ko teg ci sënu bi. Uh-huh. wàcc baraake ko. non bërekat la. non bërekat la te nit ñi da ngay defoon fii rek la man. waaw mais bëri na bëri bu rëy démb. mais mais Bébé Diène di ndaanaan boo xamante ne nii confiance lamb kenn du ko gañee te bëri excès de confiance waaw lamb doo ko gañe mukk te bëri